voilà c'est parti amis téléspectateurs de Light TV tey jii nag ñu ngi fii nii ci li nga xamante ne moom moo nekk Teexeñ Cosaan jour J moins 4 la wax diggante Ama Baldé ak ki nga xam ne moom moo nekk Papa Sow euh, open press u Ama Baldé bi tey fii lañ koy amalee ci Teexeñ Cosaan mbokk yi di ngeen gis ay développement yu extraordinaire parce que waa Pikine yëpp jóg nañu comme ni ngeen ko gisee xumbu xumbi xew suñu ginnaaw waaye tamit noonu la waa Pikine jógee aus tamit ak seen i xiir

Alors, ñaanal suñu ñaari waajur di sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Saliou bu baax a baax xëy na buggee wuñ ko woon nii waa dem nag dama leen comprendre parce que tamit ay fan si lañ dañoo xër si man Iba wàcce sa loxo tuuti waaw waaw li daf ñu joxaat beneen beneen yoonee beneen ñaan yàlla beneen joxaat beneen expérience moo xam ne ñu gën a mën a organiser dafa des waa Pikine ndeysaan dañoo xam ne xër si ñun moo tax mu demee nii maa ngi jégalu nag ñëpp xam ne xër la rek waa xër gi Pikine xër ci yow ak mobilisation bi ñu mobilisé wu loolu également sas la pour yow message la pour yow ndax décrypté nga message bi waa bu baax a baax parce que ñooy nekk ñooy wax ñoo ji xoolee ñu fi nekk ñëpp ku nekk am naa am naa yow jàmm ku nekk naa wax yow ku nekk naa kii ak yow du ñaan yàlla rek yàlla buñu ca topp du ñaan yàlla ñu yàlla defal

te ci terrain boobu maanaam xeex ak moom ba ñëpp xam ne yéen a ngi xeex. faral nañ lépp. bay faral nañ lépp gis nga lu gërëm nooy rek la ñuy def bu fekkee bëree gërëm nooy ñu dem bëri bu fekkee xeex a gërëm nooy ñu dem xeex bu fekkee défendre moo gërëm nooy ñu défendre. mais combat la bu nga xam ne enjeu bi dafa rëy li ci laxasu dafa rëy parce que waxal nga ko sa bopp recueil yi ñu ngi lay xaar mais pour nga egg ci recueil yi il faut nga jaar ci segg bi nga xam ne moo taxaw ci sa kanam loolu est-ce que pression supplémentaire ci kaw am bi mu nekk bëri nañu amul amul du benn pression dañu ñaan yàlla yàlla ñu naan yàlla ñu man bi commencé yàlla ñu yàlla Papa Sow xam xam nga ko moom it xam na sa ay qualité ndax am nga temps visionné ko xool nu muy bëree pour xam ban stratégie ngay utilisé moom la man Papa Sow mooy gars yi ñu naan am waral waaye bu ma duggee si laaj dama lay commencé dama yàgg ama ci ban waxtu sax la nekk ndax préparation bi yàgg Thank you. yàgg ñoom yàgg nañoo def lii xëy na dugg leen yàgg nañoo def lii bu baax a baax jàpp leen naa leen tey mobilisé nii nañ ñaan yàlla mobilisé bi suñu suñu combat muy samedi di moo ñëpp ñu ne ñëpp ñëw parce que souvent askan yi loolu soxla làmb loolu la soxla maa ngi ñëw jëm parce que amu bala nekk muy dugg ci muy yëmbal benn baraag am na Masaar parcelle Guédiawaye benn baraag am na yëmbal bàyyi bàyyi ñëpp moom ñëpp maa ngi ñëw mystique également dafa am lu laaj waajal bi su mel noonu ndax Thank you.